ndax yaram day enregistré mais ñu bari loolu la xam gis nga yaram yaramu doomu aadama ni nga koy gisee nii image boo dund image boo dund mu jàll wala réunion boo demoon ñu wax fa nga dégg sa yaram enregistré na loolu récepteur la boo xam ni mësuma gis ci wàllu technologie ñu mujj dem ba ñu mujj dem ñoom ba ba ba découvrir lu toll noonu yaramu doomu aadama naa wax yaramu doomu aadama yëpp nag gis nga boo dajeeg nit ci réunion wala nga dem ci benn place image baag la fa xewoon lan fa waxante yaram bi dafa mel na caméra boo xam ni dañ ko filmer la woon enregistré na lépp waaw te gis nga li gën a yéeme mooy lu mu enregistré du effacé ko parce que daf ko war a transféré waaw comme ni ngay enregistré dara ñu jox la clé ni transférel ma ko ci nga transféré ko moo tax bu ñu demee ba nit ki di bëgg génn àdduna malaayika bii ñëw tàllal laafam ngay xool sa dund ak sa jaar-jaar ba ngay xale ba ba ngay mag gis nga li malaayika bi di wane ci laafam yëpp sa yaram moo ko ko transféré mais bul defe ni bi mu ñëw daf ko indaale indaale wul leen malaayika bi ñëw tàllal laa laafam nii ngay xool sa dund quelque secondes avant ngay génn àdduna bu doon cent ans nga fi am seconde yooyu bu doon cinq secondes la dana la wan ba ngay xale ba juddu ba fi nga mujjee tay jii image di jàll benn par benn bu cinq secondes mën na ci mën na ci jàllale image yoo xam ni am nit ki dund na cent mais gis nga image yi muy wane sa rox bi ñu rocc ba nga xam ni desul lu dul ñu dindi rox ba jeex na tàkk mu ngi ci point bi nga xam ne bu ñu ko roccee nit ko dootul dund la yaram ba dencoon yëpp ca la ko ko yaram ba transféré comme clé muy défilé nii récepteur la moom yaramu doomu aadama récepteur la moom yaramu doomu aadama ah, gis nga ñi gëstu ci wàllu technologie tey boo demee ci ñi nga xam ni dañuy dox la ñoo tuddee wàllu contre espionnage ak yeneen ñu ci mel ni wàllu CIA waa CIA waa FBI gis nga yu mel noonu la seen scientifique yi dem ba comprendre ba yëg ni ndekete nit ki dugg ci biir néeg bi nit ki dugg ci biir néeg bi ngay xool ndax mi ngi ci biir néeg bi ndeke laajatul ngay dem di yër néeg bi di xool ndax mi ngi ci am na ay caméra thermique yoo xam ni boo ko tegee rek dana la woon benn chaleur chaleur boo xam ni tomb tomb lay doon nga yëg fi mu positionné suñ ko bëggee assassiné noonu lañ koy assassiné te ma nga ci biir néegam waaw seen scientifique yi commencé nañ ko comprendre ah yëg nañ ni ndekete yaramu doomu aadama mën na dem ba koy gis ci caméra fekk mur dox na seen diggant waaw ah. parce que source de chaleur bi ngay détecté ah. source de chaleur bi ngay détecté ndax tànk nit ki mu ngi nekk en contact ak soleil bi nii nekk en contact ak univers bi nii ngelaw li di ko upp source de chaleur boobu dafay feeñ ah. yaramu doomu aadama bi scientifique yi dem nañu ba trouver ni tant ndekete yaram bi mi ngi en contact ak ngelaw même bu dee ci biir néeg bi la tëju mi ngi en contact ak benn jaww ju ko wër même bu dee ci biir néeg bi la tëju univers u néeg ba mooy tax source de chaleur am dafay nekk tomb-tomb boo xam ni caméra thermique yi dañ koy gis waaw ñi mel ni wa waa CIA amee nañ ko FBI amee nañ ko ñu yore wàllu contre espionnage di ko def bu ñuy recherche nit noonu lañ koy recherche laajul ñu tijji néegam di ko xam waaye gis nga source de chaleur boobu source de chaleur boobu pourtant yàlla indi na facteur boo xam ni moo koy fay facteur bi mooy ndox moo tax tey ñoom ni nii ni ñuy détecté ni ñuy détecté source de chaleur boobu ci biir néeg ak seen caméra thermique boo soobu woon ci biir ndox dootuñu la gis tànk génno waaw boo soobu woon ci biir dex caméra thermique yi dootuñu la détecté duñu détecté benn source de chaleur ci biir dex ndax ndox moo koy waaye booy génne sa bopp ci ndox mi rek ñuy gisaat source de chaleur nga dugalaat réeraat léegi organisation yàlla la organisation yàlla la parce que gis nga source de chaleur boobu mooy récepteur bi nekk ci biir yaramu doomu aadama nekk ci domaine xayb di enregistrer lépp loo xam ni passage am la sur terre lépp luy passage am sur terre daf koy enregistrer waaw waaye gis nga lim koy enregistrer di ko enregistrer lépp soo jëlee lu mel ni ndox interférence bi mu am ci digganteem ak xayb moo ëpp doole enregistrement boobu moo tax boo duggee ci ndox mu fay source de chaleur waaw interférence ndox ak xayb waaw kenn mënul natt lu ñu toll ci liy xew ci univers bi waaw ndox mi ngay gis de dex gi nii de interférence am muy la muy zikr li dex gi di zikr li dex gi di zikr muy dem ja xayb interférence boobu moo ëpp doole source d'enregistrement bi nekk ci corps humain waaw looloo tax source boobu comme dafa connecté wu ci xay bu ndax clé la bu mu war a transférer malaïka bi soo sooboo ci ndox rek ñu ni dootul exist ba nga génnaat mu continuer di feeñaat scientifique yi dem di étudier di étudier ba gis ni ndekete mën nga gis nit ci biir néegam caméra bi jël ko nii ba nga xam ni tomb tomb bu xonk bee moom la te te jarul ngay tëjji néegam di ko yar waaw pour wax la ñoom it fu nekk ñi ngi jéem a pousser ñi ngi jéem a pousser seen xam ñi ngi jéem a pousser seen xam-xam te it loolu la muy dëggal la muy dëggal mooy baat bi yàlla waxoon yusabbihu lillahi maa fi samawati wa maa fi l ardi waaw maa fi samawati wa maa fi nga dégg ko nga commencé dégg ndox mi moom it ak wàll dégg garab yi ñoom it ak seen wàll dégg univers bi ñoom it ak seen wàll